waaw asalaamaaleykum ñoo ngi ziar ñëpp jégglu ñëpp situation bi daal nii la demee xëy nañ suba teel man dama liggéey woon wàcc ay 9 heures yooyu diggante bi ma yónni sama doom bi ndékki ne ko damal jëndal ma ndékki ma daw di ñëw muy daw di ñëw am suñu benn doomu dëkkandoo bu daw ñëw ne ko ndey am na ku gàddu ayda mi ngi dem ak moom mais xàmmewuma ko ci kër gi waaye nag xaw ma mbokk yaayam la xaw ma moo tax mënuma wax dara ndey Fatma ne ko ii kuy koy gàddu di dem moom ndey Fatma tamit teg lu mu yoroon daw topp ko dew ba si kalandoo yi fekk tombé nag oto mbalit ñëw xam nga kii mu am embouteillage noonu ndey daw topp xool ba sonn gisul dara mu dellu siwaat daan na yaay ji ana Aida mu ne ko mi ngi si maamam mu daa daw ne papa ngay ana ayda mu ne ko ayda mu ngi woon fii léegi mu xool xool ñu ko dara ñu daw këmt këmt këmt gisuñu dara mu ne ki ko fob daal mi ngi koloo kol bu zone di dem nag di geesoo moo tax xale bi xaw a am kii daal mu daw ñëw nag wax ko si sama doom bi sama doom bi tamit teg li mu yore daw di ko seeti gisuñu dara. kon ki nga xam ne seen sët la ci biir kër gi lañ ko jëlee. si biir kër gi moom maam ñoo toogoon di foo yaayam mi ngi si waañ bi di togg man maa ngi si sama biir néeg sam sam papa mi ngi si néegam ñëw na ba sànni ko lu mu yoroon sànni ko maam ji. ci diggante bi rek kenn gisatu ko loolu daal lañ ci kii noonu daal doy na waar ëpp na tool moom si lañ daw nag am na caméra surveillance yu nekk fii si lañ daw nag dem seet comme dangay seet rek ñu daw xool kooku tamit daal ñuy xoolal mais comme xale bi nu mu ko expliquer nekk ki sollu zone la mi ngi ko bokk noonu lañ ko séene mais af caméra bi nag dafa kii dafa ful kon taw bi biig moo tax leerul bu baax mais ñu daw nañ xool mais kiiwagun daal amagun si dara luñ leer. waa dem nañ police dem nañ télé ñëw na fii fu nekk daal fu ñu xam rek ñu ngi fay dem dem nañ police nag dem nañ police dem nañ tribunal yëpp ñu ngi. papaam dafa voyagé dafa génn. xanaa métti rek te papaam moom day mooy day def make-up noonu xam nga rek Zal la tudd ma Zal make xam nga papaam dafa siiw macha allah waaw loo mën a comprendre xamoo mooy taawam. at ak genn wàll la am ñoom nekkuñu fi woon sax yaayam dafa dafa da génnoon temps yi xale bi fan yi rek lay doog a ñëw moom miinul sax waa kër gi bu baax moo tax nag xale bi ko gis te ñoom buñ koy fob day bañ mu gis nag nangu na keneen kooku fob ko kooku looloo ko jaaxal moo tax xale bi daw ñëw daan ne ndey gis naa ko fob Aïda est-ce que euh, du man xàmmeewu ma ko ci kër gi de ndey na ko ku fob Aïda Aïda nanguwul kenn xam nga tamit doo comprendre léegi nag mu yaakaar na si mbokk yaayam la wala dara moo tax munu ko téye xale bi nag si la dawee nag wax ko waa kër gi sama doom bu ndaw bi nag dam di ko xooli. amaguñu si dara si lañ ko wax yaayam nag yaayam defoon na mu ngi si maamam mu daw wax ko maamam maamam génn gisuñu dara. ñu ngi kañ ñu ngi tàllal suñu loxo ñëpp moom yàlla yàlla nit ko mu feeñ ci jàmm ñu indi ko si jàmm.